yaasin mooy xool alquran dégg nañ ko mooy qaxaaru qaxaaru euh, ñetti téeméer ak lu teg la juróom-benn yaasin tamit ñetti téeméer miim la am ak juróom-benn waaye boo ne yaasin yaa ba fukk la siin ba ñetti téeméer la moo taxoon Cheikh Abdul Qadir Jilani xaddasal bu doon bu doon yebal ay doomam dafa ñuy sëy mu ne na ngeen leen firil yaasin yaaba ha, yërmande sin ba sutura sey bu ci lii jógee jeex na ak sutura nga yërëm ko ne bàyyi na kër ndeyam ak kër baayam bu ambe, yéen a bokkoon bànneex bi waaye tey métit bi moom kese la buy matu sans gagne sans perte mun na dee mu wasin ñu tere ko sant ba jox la sant ba doom ba màgg nga yónni doom ba yaay ba yónni ko mu bàyyi boo yaayam def sa bos kon war ngaa yërëm jigéen boobu nga jëfandikoo ko ba mu lappax nga ne ko ñukk dem seetu ñu tooy maa ngi jéggalu ci waxin bi jotaay bi moo laajte loolu dafa am ay pël ay séeréer ay hawsa ay dogon du ñàkk teggin waaye jàngale bu métti lay jàngale fi ma tool waaw nit du tooy maanaam bànqaas nit ñi na bànqaas mu tooy mooy xale bu tuuti waaw nga dem jëli ko daal di jëñax këlëfala sutura mooy siin ba yaa siin yaa ba mooy yërmande siin ba mooy sutura suturaal ko penc bu jàmm yendu kenn ku nekk la nga xam sa morom da nga ko waxul dégg nañu wolof bi penc boo xam ne jàmm yendu na fa kenn ku nekk li nga xam sa morom da nga ko waxul li ma xam ci yow bu ma ko waxee jàmm du fa nekk li nga xam ci man boo ko waxee jàmm du fa nekk li nga xam ci nit ñi ak li yàlla xam ci yow ñu ngi lay raamal di fóon sa loxo di la jox àddiya bu yàlla feeñaloon misqaala zarat li ngay doon ñëpp dañ lay daw kon yàlla mi la suturaal suturaalal jaami diw njaalokat nga kan nga yëkkati ci kawam ah diw nga kat la ci kaw ban jigéen nga ko yëkkati foog naa defe naa jort naa lislaam du àtte ci loolu nañu tuub dellu ci yàlla bu la suñu dund dina métti kon yaasin ñaari béréb lañ koy jàng ku deem ku dem ba wone màndarkay dee ba nga xam ne ku dootul jógati sonn na buñ ko jàll njàngale yaasin dana teel a yeeweeku ak koo xam ne danga bëgg bàmmeela mu wéttaleku yonent yi moo ko joxoon Seydina Ousmane ne ko jàngal ko sa soxna aaya bu nekk dina doon leer di ko wéttil ba yowmal qiyaamati dégg nañu kàddu gi aywa ba tey ñu ñëw na ci li lëmbay réew mi yëngu-yëngu yi xew jamono yi julli di nangam julli di nangam julli di nangam ñi koy wax dañu xamul l'islam amna ben calife bu reuy mi ngi doon liggéey Maison Blanche ci Amérique Maison Blanche mooy palais bi américain di dëkk ah bu dee Mali la fi président bi dëkk moom la ñu tuddee bu Guinée la fi président bi dëkk ñu ngi ko tuddee Sékou ya bu Liban la fi président bi dëkk ñu ngi ko tuddee Baabda bu dee ci Russie la président fi mu dëkk ca Moscou ñu ngi ko tuddee Kremlin bu Amérique la fi président bi dëkk moom la ñu tuddee Maison Blanche dafa am ko fa doon liggéey moom ak Ronald Reagan xam ngeen ko mooy ki bombardé woon Libye booba maa ngi foofu moom bombardé Tripoli benn Benghazi dafa am ko bokkoon ci entourage ni mu bañee lislaam kenn mun laa wax ni mu bañee lislaam moom mënoon a lekk jullit mu koy xool ba mu demee nag ba Ronald Reagan am ñaari mandat nguuram daal di jeex mu ne moom li muy weddi est-ce que du dellu ci làkk bi ko yàlla wàcce mu jàng ko mu dem jàng arab ba xam alquran dem jàng hébreu làkk bi Israël di làkk ba mun a jàng seen bible ba te mooy Talmud mu dem jàng làkk armen ci lañu bind évangile évangile ci armen lañ ko bindoon armen benn réew la mu ngi nekk ci weti Azerbaïdjan ci ginnaaw turc mu jàng téere yépp mu dajale làbbe yi seigneurs yi cardinaux yi mu dajale kilifa yi làbbe yépp ñiy takk lu ñuul li seen digg ak ñiy takk lu xonq li ak ñiy aj bu bu bi teewal leen ñoom ñépp mu jël benn aaya moom tubaab bi de américain bi mu jël benn aaya ci suratu Ali Imran mooy ñaareelu saar bi gën a rëy mu daal di ubbi téere bi ne leen inna allaha istafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahim wa ala imrana subhaanallah dégg nañ kàddu gi e, yàlla de démb moo tànnoon aadama ba duggul ci benn ñaawteef def ko muy nit moo gën a rafet mboolem njaay àll may ko mbubb may ko tubéy may ko mbaxana may ko dàll may ko ay kër may ko gaal may ko nanga may ko nanga inna allah istafa aadama yàlla moo yëkkati aadama mu tiim lépp lu dul aadama yemu ci loolu wa nuuxan mu tànn yonent yàlla nuux mu gën a gudd fan ci yonent yi ngir gëna a séparer mbon ak mbaax mu njëkka doon lawbe yatt gaal nit ki di tëmb ci kaw géej yemu ca wa ala ibrahim mu tànn ñooñ ibrahim ibrahima jur ismail jur isxaaqa isxaaqa jur yaqub yaqub jur yuusuf jur yahuza te yahuza mooy maamu yahudi mu konne di jàng li aaya fanweer ak ñett la ci suratu ali imran muy jàng bi yegg ci isa yaayu isa musta njaalo te moom moo jur ku sell kookale Euh, ki ko yar mooy Zakaria baayu Yaxya tudd baayu Maryam ñëw ba ci Isa inna masala Isa indallahi ka masala Aadama xalaqoo min turaabin summa qaala kun fa yakun di jàng làbbe yi di jooy xamaguñ ne lii alquran la moom tubaab bi de mooy ki nekkoon ak Ronald Reagan président Amérique muy jàng rek ba ñëw maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan musliman wa maa kaana min al mushrikin ibrahim du yahud ndax yahud ci gannaawam la feeñ ibrahim nasaraan ngir nasaraan ci gannaawam la feeñ ibrahim lan la woon xanifan dafa mat a fegg woon lépp lu dul bu yàlla daf ko bàyyi woon musliman ku jébbaloon boppam yàlla la wa maa kaana min al mushrikin ñoom ñëpp ñu daay tëdd ci suuf mu ne leen li ban téere la yahudi ne lii de bible la bible anglais ñoo ko dee bible ne ko lii bible la mu ne yéen xamu leen seen téere ñu ne ko lii bible la wax yu sell yi ci yaay Mariama wax yu sell yi ci Isa ci Zakariya ci Yahya ci Ibrahim ci Nuhun ci Adama ci Ala Imrana ne wax bi du waxu benn téere bu du suñu téere mooy bible mu ne Nasrani yéen nasaraan yi catholique lan ngeen ko ñu ne li évangile la mu du évangile bu catholique du bible bu yahudi mu ne lii mooy mu ubbi téere bi mu ne kon xam ngeen ne da ngeen yées seen téere sax mokkal leen ko te téere bii xale yi gën a tuuti toll ci fukki at yëpp mi ngi seen dënn téeméeri ak fukki saar ak ñeenti lépp mi ngi ci dënn xale kon bu ngeen nangu ak bu ngeen nanguwul ëllëg diina gi mooy ommat bi kon comprendre ngeen kàddu gi ki ba légui mi ngi dund man bama koy gej mi ngi dund ba légui mi ngi Ronald Reagan xam ngeen ko ba mu bombardé Libye ci année quatre la bo man ma ngi foofu boobu Ibrahima Fall bi nek ministre affaires étrangères ñoo bu fo fekk ma fofu man mako ko gunge ba Xadafi Aziziya ba tanka mu fokkasalu ci ben doomu tubaab man maa man ma dindi doomu tubaab ci kanam kon li yëpp mu gën a leer moom Ibrahima Fall bu ko déggee at bi mu demee Tripoli seeti kër Kadhafi ki àndoon ak moom ba mu bëggoon a joggi doomu tubaab bi ku ko dindi ci kanamam man la woon léegi diingat kat dafa bëri moo tax booy wax diplomatie tudd nit bokk ci waaye Ibrahima Fall fu mu toll ci ne bu déggee dina xam ne man la woon loolu xewoon na dégg nañu kàddu gi alquran bi ngeen yore du fooyekaay am na benn buur ci àddina bi ñu ko dee Napoléon Bonaparte xam ngeen ko ah xale laa yéen ñi mujj ci téré bu empereur la France ah Napoléon Bonaparte empereur la ci France ban at la judd mom mo ñëk andi machine buy mool ay téré Égypte mo ñëk andi machine buy mool ay téré Égypte kañ la judd ak kañ la dé aha am na ñuy sëggal seen bopp ni ci suuf

yelonté man bala may dé sama fan lu gatt man Napoléon ma dajale borom xam xami yi xel yu rafet yi xar baxi ma jël alcorane tek sen kanam né nañu bayyi constitution adina bi yëpp bu la neexee nga soppi sa constitution réew ngir sa masla naafalu ñaar yoon naafalu nangami at naafa ñu ne ñu bayyi lepp ñu jël alcorane tek suñu kanam ñun ñëpp ñu daal ci adressé di ci attew mu ne kon texe mo doon suñu mujj te kii la. 어? 라간스 갔어요, 쉐브. What? 어? 또 도니? 어? So, danaa mottali léegi 5h20 ngeen may ma ma dem ba ay 5 ma gën a leeral yenn yi dafa am lu ma dese leeral ngir yëngu-yëngu bi xew ci réew mi ñu naan màkk aj bi dina mos dana mos a toxu déedéet dama bëgg ngeen demee lu concret kenn du leen jaaxal ba ngeen di dem di tottan di tontante ci rajo ak télé li ma bëgg mooy kenn ku nekk bu jógee mu jógaale dara lu concret ne góor gi moom moo ko wax te ban téere la wala ban analise la danaa ko jottali euh, liñ ne ci alquran yàlla tuddul màkkata ne bàkkata la yàlla tudd te bàkkata mooy fi yahudi di jooyee ci wetu euh, Jérusalem waaw boo demee masjidul aksa ci miir ba ba yonte yàlla muhammad di yéeg ba muy julli ñaari ràkka fi mu yeewoon alburaaq fasam boobu ñu tudde alburaaq yahud yi dañuy dem foofu ne mooy seen miir ba nga xam ne ca la ñuy jooy ngir yéeg ci yàlla nit yàgg naa yegg ci yàlla fekk jooyul mu ne bàkkata jooy kon du màkk bi bële la Mouhamed ñaata la 92 ah Mouhamed ñaata la 92 ñaari miim la miim bu nekk 40 40 fois 40 40 fois deux 80 xaa bi 8 la 8 boo ko yokkee ci 80 muy ñaata 88 daal bi 4 la 4 boo ko yokkee ci 88 muy ñaata 92 kon Mouhamed 92 la d'accord ngeen foofu ah bon. yàlla mi ngi wax bàkkata inna awwala baytin wude linnaasi lëllazi bi bàkkata bàkkata boo ko wàccee vingt-sept la baa bi deux la kaa bi vingt la taa marbuut bi cinq la deux vingt cinq mu jox la vingt-sept tee ngeen vingt-sept bàkkata vingt-sept la makkata miim ka tu maa bi quarante la cas 20 la 20 ak 40 muy 60 tout 5 la muy ñaata 65 65 boole ko 27 mu jox la 92 دي محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kon bàkkata mooy màkkata waaw sàmba mooy bàcc di walla waaw yoro mooy mooy ngatam mbeen mooy ayda daba mooy roqiyatu walla waaw mbay mooy abubakar kon bàkkata mooy màkkata màkkata mooy bàkkata bële 27 la bële 65 la leen boole mu jox la 92 mooy mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yemul foofu de lii doon doom ci nit 92 la bu ñu bokkee di sëy góor andi awa 43 ah 46 góor andi 46 jigéen andi 46 ñaari 46 mooy ñaata 92 bu ñuy sëy góor andi 46 jigéen andi 46 góor daal di wàññiwaat joxe vingt trois jigéen joxe vingt trois ñaari vingt trois yi muy quarante six doom bi tam am loola la te lii mooy quatre-vingt douze mooy Seydina Muhammad kon Muhammad mooy kilifay Makka kon li ñu naan bàkkata mooy Jérusalem ne Jérusalem moo yàgg Makka yonte Yàlla Ibrahima dafa noboon Haajara ba mu ëpp rek moo tax mu yóbbu kaaba gi fa la déedéet kaaba gi mooy watiini zaytuun mooy baytul maqdis tuuri siiniin mooy sinaay bi Cheikh Ibrahima doon wax keroog ne dem na fa moom ak maam Balla yal na yàlla fay leen wa haazal baladul amin mooy mbineetu munawara tiin mooy garab goobu te mooy géng fa mu njëkk a sax ci àddina bi moom lañu ñu dindi mu ñu teg fa kaaba gi booba màkk tuddagul màkk waaye mi ngi tudd maakura ba ci làkk gërëg bu njëkk maakura ba mooy njombe bu rëy kéemtaan bu rëy loolu lay tekki maakura ba ba boo demee ci làkk bambara loo dégg ñu ne ba mooy lu rëy baa ji ndox mu rëy wala ba yaay gisoon Nelson la nan lañ ko tuddee waxleen ko ko ba nit ku mag ki ba ci làkk yi mooy lu rëy moo tax alxuraan tàmbalee ba siin mimara ba moo tax màkk ci cosaan làkk yi jiitu woon ba ñuy bind mi ngi tudd màkkura ba kon ku bëgg a gànnaawal màkka dangay jiital beneen dëkk ngir sa politiku jamono bëgg Israël dimbalal Israël mënta yéegal ko yàlla yéegal Israël mënta daanelu ko yàlla yéegal te Israël woggu galaas la jant bi koy seyal mu ngi ci yoon dëkkee di jooyloo nit ñi di rey nit ñi mënta wéy guerre yi dafay jeex